nihma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay. kasu rajabin akramani. yow yow nag li ma la ci digal mooy dégg nga ma li ma nee na a liggéeyal. ko wax ci lamiñ. kasu rajabin akramani. yaa ngi mel ku bëgg a dem tegal yow ngir ngir ngir boo xam ne amul pakk amul mu ko waxoo ci def rek. yaa ngi liggéey boo demee ak loo mën ku nekk ci chaque jour sëñ Fallu sëmbu nan sangu nan jàpp nanu sugaleef na ca duus ya fa mbuuru sant naa sant naa sedd naa xalifa maa yafal maa ka suuru jaaru naa jandi naa mandi naa daane naa faati njaay mee fa mbuuru bëmb naa bàkk naa sama mbaro làng naa maa ngi way sama géeru sëñ Fallu làggu naa wàlli yoo naa làng naa dul ma wàlli ka jooru naa wàlli naa woote naa wiisi naa walla may kab ka waliyaan seeni kër tëgguwuloo sajj nan lambi yàlla di buuru la rabbina tawasal bi seyxil kabiiru ràgg naa wopp naa waswini nang masa farasa fi suduuru sëriñ fàllu làmbi diina ji sàjj na tayoo mbàkke mbaatew jël ku biiru soggi leen jàggi leen jóggi leenoo na ngeen daane mbëri yee ca biiru sëñ fàllu àdduna ki bakkan ñoo ma loro ak bànneex ak kuréy fiiru alaaji faliloo baaxul ma leen daane loon bal di leen yaa di seyxul kabiiru sëriñ falilu sama ndaama la moo bari ndamoo ndaama dam bi bawal ak jooro alaaji faliloo ndaama laa jaraway jaara kañoo maa ko kañ bani kajoori jooro ku ko bañ maa la bañ toj sa bañoo ku mere te nga wey siigi cooro ku bañ boo demee ci bàmmeeru da nga gis mu jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen di gërëm ziara ji ci ziyaara bi Seex Muntaxa Xaadimal Mustafaa sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla yàggal ko ci wéral ko di nuyu itam Seex Abul Baraka ak mbooleem njabootu Seex Muhammadul Faadal gépp eh, di am mbégte nag ci ni ko waxee mujj yi njëkkee kàddu yu mujj yi nga wax léegi ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi rawatina njabootu Sëñ Baara ñu ñëw teew fii at mu jot ngeen ñëw ñoom ngeen bokk fi nekk ñi njabootu Serigne Khadim Awa Ba ci Serigne Khadim Awa Ba kenn ku nekk xam ko ci yoon wi ñoom nag ñuy wëllëree soxna si di léppi soxna si at mu jot ñu ñëw fii teewee màggal gi yendu fi lépp ñu def ko fi muy mbégte mu am solo soxna si di ci bég man mii nga xam ne maa ne ci kër gi di ci bég kon nag ñu ngi leen sant leen gërëm di leen ñaanal yàlla seen barke maam yal na leen yàlla taxaw ci barke Sëñ Fall eh, ndax itam fekk nañ fi seen seen rakk mi soxna may Maymuna Mbàkke moom itam bintu Cheikh Abdoul Ahad Baara mi nga xam ne moom itam ñoo ñoom ñoo bokk lépp yàlla def kooku Cheikh Abdoul Ahad Baara tudde woon ko sama waaju joxoon ko ko mu yaroon ko ba nëgëri kon buñ ñëwee fekk si ko fi ànd ak ñoom dafay rafet lool te nëgëni bii la waa Kër Sëñ Baara yëpp wax dëgg yàlla ñu ci bëri teew si bi ngir lan ngir loolu kon nag jër jar nañu fàttali ko bis bi nag bis la boo xam ne ni ma koy waxee rek yàlla dama cee yamale tey ne man daawuma leen fekk fii ndax heure bi du ma am jot ndax buñ ne yow yaa jiite organisation màggal gi di coordonné lépp ah, daanaka doo toog dama fi ñëwoon rek ngir ay gan yu fi ñëwoon ma ji ma rëcc ñëw fi far dajewaat fee génn kon nag loolu mbégte defe naa daaw nii la dama rëcc ñëw daje fee génn ren itam ñu def lii yàlla nañ ko yàgg def ci barke Cheikh Amadou Fadal bis bi nag bisu mbégte la bisu cant la ndax bisu sëñ fàllu la ci kenn ku ne xam ne sañ fàllu bu yàlla baaxee nag bisam ñëw bis la boo xam ne ñëpp ci xer ñëpp ci euh, ba gën a bëgg sax ñi ko yor gi ndax sëñ fàllu lam lay waxoon ne maay Sénégal bisam bi leer na ne moom mooy Sénégal a ah, loolu nag kon bu amee bis bi kenn ku nekk ñëw di taataan si li ñuy def mooy ñaan ci dara jaam rek lépp lu fi waaye taataan rek ñaan ko fi yàlla may la ko ku feen di jàngoro jàngoro ji yàlla na ko yàlla seral jàngoro ji nekk ci réew mi rek yàlla dindi ko ba mu jeex tàkk ci barke seen faada loolu nag am nañ ci yàq yi ndax ni na gën a daaw màggal gu yam lañ ko defoon waaye mel na ni ñëpp dañoo ñaanoon ci dara jaam bu déwénee ñu màggal ko kon nag loola yàlla antul na ko kon nag ñu ngi koy sant gërëm comme ni nga wax nii nag ñu amaat mbégte it yàlla yeesalaat xabroom bi mu nga xam ne kenn ku ci nekk koo gis la xam ne Cheikh Modou Fadel mérite woon na lii waaye loolu li ko waral itam na mu defoon sëñ Tuubaa ak na mu defoon sëñ Tuubaa loolu la ko sëñ Tuubaa di fay ndax sëñ am sa sëñ euh, bu Mbàkke nettali na ma ne bi mu liggéeyee barabu sëñ Fàll bi mu pare sëñ Tuubaa bi sëñ Tuubaa da sëñ dafa woo sëñ am sa jaxat ne ko baay am sa dama bëgg nga ñëw xool li ma defal sa waa ji nee na sëñ am sotti jaxate jóge këram ŋàbb bitéelu laaj koroñ sikki ñëw nee na di wër barab bi di ko raam di ko wër di ko wër mu ne ko Cheikh Mour Fadel yaa defal sama waa ji mu ne ko waawaaw mu ne ko de ne la wóor ne de eh, sa àdduna ak sa àllaaxira lépp jàng mu daan ne ko waawaaw bàyyam sa mu ne mu ne ko eh, jamono fi toll nu tolle ko fi waaye bu ko weesu ñu weesu ko loolee nag moom la ko yàlla fay kon may wax nuyu itam jamono moo euh, toll sëñ Fall ni ñu def barabam bi ah bu ko weesoot nu weesu ko rek ndax di ci sant nag profiteur di sant nag président directeur général bu ICOTRA muy Abdoulaye Sylla mi nga xam ne moo defar xabru ba ndax nun fàllu yi lañ ko sasoon bi ñu ko sasee man nag sama xarit la benn bakkan noo gonendoo defandoo yi fi gone yëpp ñu ba nëgëni bi mu amee ma dem ci moom leeral ko rek damaa bëgg nga def ci sa liggéey rek ñaq turandoo yi lañ ko sas waaye soppi sëñ Fall it ku di ci waaye def ñu jël ko mu wax ma ne ma damaa bëggoon dey nga wax ma ñaata moo koy defar ma ne ko architecte bi nee ne temps moo koy defar mu ne ma da li ma ci bëgg a duggee daal sëñ Fall jox la temps yooyu nga dem liggéeyal sa bopp wala nga bàyyi ma ma liggéey ko dana taxaw taxawaayu cinq étoiles man daan ni ko kon liggéey ko ci saa si ah ndax damaa xam ne comme yàgg na maa tukki ca xam naa lan mooy cinq étoiles ci rafetaay ca xam naa ne fi ne moom tey bu ñu ñëwoon douze étoiles am na wala vingt étoiles barab bi weesu na ko tey mu def ci ba def ci loo xam ne ni tey damay wax ne borom barrière Madina ba or ba ca Madina laay dégg waaye borom làmp or ba ca Touba Sëñ Fallou la bi ndax lamp yi nga fa gis bopp bi ko tiim ak yëpp or à 24 carats la loolu nag ko am yitte def ko def ko noonu ma ko def ci moom laa gisee barab boo xam ne ñeenti pays liggéey nañ ci Dubaï liggéey na ci euh, Siin liggéey na ci Iran liggéey na ci Allemagne liggéey ni ci lamp yi dañ ko commandé Allemagne commande euh, euh, euh, marbre bi Iran lañ ko jëndee li ko wër mbubb mi du bàyyi moo ko defar pavillon bi ak giri bi ak ak ak ak porte moo ko defar li nga xam ne moo ko wër rek ñu ngi door a am Sénégal wax gis naa génn kilifa mu ñëw xool ko bi ak mu ne fàllu kii di li mu def ci barab bi du ko wax mu ne ah, mu ne ma gis nga lii lii ko wër nii ci mbubb yi mu ne ah, mu ne ma moom lañ bëggoon def ma masaalik seer a tax ñu bàkko kon nag bu ko defee foofu muy valeur boo xam ne kenn xam ne ko ku jar na ñaanal li tax na ma profité wax li dama bëgg ku gis loolu bég ñaanalaale ko moom Abdoulaye Sylla ndax yéene la ko defee mamatal ko ba mel nii kon nag yàlla na ko yàlla fay fay na ñun ñëpp ñi ci nekkoon na ñëpp ak koo xam ne rek am nga yéene ji dekk ji euh, loolu nag dama jàpp ne sëñ Fall nag mbiram bu yeesee lépp la na yees kon yaakaar naa ne daal eh, lu waay bëgg ca màggal si ca amoon yéen jëlee ko boo ko fase jëmi sëñ Fallou yàlla dana ko may ndax sëñ Fallou eh, eh, sëñ Alaaji Baar dama waxoon ne sëñ Touba dafa waxoon sëñ Fallou ne gara Fallou de ku jubóog boromam la loolu it yaakaar naa ne ko kenn ku ne xam na ne ku jubóog boromam la ndax vraiment sëriñ si bari ne ku nekk itam am nga sëriñ waaye nag yaakaar naa ne ñu ci bëri ku ci jàq da nga woowaat sëñ Fallou loolu nag mayu yàlla la loolu du lu ne ndax euh, euh, sëñ dégg naa Seex moo sëñ Saliou Mbacke mas na wax ne sëñ Fall di ñun ñëpp de kenn ko ñekk njabootu sëñ Tuubaa am na lu sëñ Tuubaa defal waaye sëñ Fall di la ceeraw ndax kenn ku ci nekk ci ñun sëñ Fallu sañ naa ñëw jël ci li nga yor def ci lim ci def ca du la tàggu loolee nag mooy li nga xam ne kon moo ko may li mu am kon nag yàlla na yàlla tas ci barkeem yàlla na yàlla se defal Sénégal di sant ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ ci kër gi fekk si fekk si soxna ndax man fekkuñ ma fi ndax man daanaka du ma toog koo xam ne yaa yor organisation kër gi fi mu ne ma toog rek kar kar jaa ngi bëri waaye nag moom bi fi nekk ba ñëpp di ko fekk moom itam wax dëgg yàlla ji wàcc na ndax bu melutoon na meloon defe naa ne du ngeen fi ñëw ñëwaat ndax kenn ku ci nekk euh, olof Ndiaye li muy wax nam mu la akkee rek ngay xool ba ba lëggee nga ñemee ñëw waaye su la defee nee na li ba lëggee doo ñemee ñëw kon ñu ngi koy sant ko gërëm moom mi fi ñëpp fekk di rawatina képp koo xam ne ñëw nga fi la ñu ngi ñaan ci barkib sëñ yàlla defal la li nga bëgg tey ak ëllëg di leen sant yéen journaliste yi wax dëgg yàlla maa génn la ci terrain bi waaye gis nañ seen taxawaay bu wér a wér yàlla na leen yàlla fay yàlla leen yàlla jàppale ci barke Cheikh Modou Fadel di sant télé bi muy ITV parce que euh, wax nañ ma président directeur bi ne màggal gi da koy def direct di ko def lépp loolu nag lu am solo la ndax lu am solo la màggal gi euh, dimension dimension bi maam moo wax buñ ko dee def télé di ko def direct wax dëgg yàlla rajo télé bu ko ci def rek jar naa sant kon nag ñu ngi leen sant di leen gërëm eh, di sant ñëpp di sant itam nu ndindi acte ndindi acte moom dama leen rek wàcc ngeen boo nee ndindi ñëw ndindi rek moom daanaka jërëtu ñu lay sant ndax yaa noon ko bañ ba tuddee sa organe ndindi kon nag bu lay muy ñëw rawatina nag rakkam eh, rakkee soxna su moo nekk ci muy soxna si ñu bokk ko si Abdoul Fatah kon nag mu yabal leen fi ñu ànd ñoom ñii ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm daal képp koo xam ne daal ñëw nga fii te sëñ Fallou tax laa ñëw maa ngi ñaan ci barke sëñ Fallou loo bëgg rek yàlla na sëñ Fallou defal tey ak ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullah yow sax ay gi amul ay wóoree guerre bi jeex marchandise dootu cher soxna Abu So làqi ndama moonu ñàkk ku ñëwul dootu réer saafu nan soosu nan jibbu nan jibbu nan tabbu nan noo ko suuroo saafu nan soosu nan ceebu noo ko suuroo marhaban marhaban jël nga ndamoo masrixan maxriban yaa gi kuuru nguur garu yi fi gën yaa fi gënoo ru bon yàlla bañ tey si booroo laa bul ragal yaa fi manoo way borom bee yi ñuy fulooroo nen du fi rooki dojo doomi ndaa maa ngi suuru ngelooro mandig leer wuute naag naan gaynde njaay wuute naag bukki njuuroo xarnu bi yaa fi gën yaa fi baa mu mat wuute naag am suhuuru sëñ Fallu xarnu bi bastulam yaa ko fulo fadlu na yaa ko yaay si xarnu bi sun jigéen ñaa ngi solo ay mbalang duñ xaro tey mu sooro sëñ Fallou xarnu bi yaa ko naatal bu wéro beex beexil yow sa ay gee ko looro nihma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay kasu rajab min akramani yow yow nag li ma la ci digal mooy dëgg ma daa bind bataaxal li ma li ma nee na maa bëgg a liggéeyal ka dem ko wax ci lamiñ mu ngi noonu kasu rajab min akramani yaa ngi mel ni ku bëgg a dem tegal ci yow ngir ngir ngir boo xam ne amul pakk amul dégg amul pax mu ko waxoo ci rek ëllëg bu boo demee parce que loo mën ak loo mën kuñ ko ne chaque jour nga sabab kasu rajab akramani kasu rajab daf maa teral